depuis 2000 laa commencé di woote fii ci centre école HLM Grand Médine bu Parcelles Assainies c'est la première fois ma ñëw rek jubal daal di voter dama faral di rang su ma koy def te amul benn élection boo xam ne raté ko pour ñëw voter accomplir sama devoir civique pour la première fois ma ñëw sama bureau vote daal di jubal voté directement amul kenn koo xam ne topp naa si ginnaaw te ba ma wonee ginnaaw bureau de vote bi dafa mel nii rang ba léegi amu fi loolu la muy tekki mooy lu ñu doon tàmm di gis si centre de vote bi te gëm naa ne soo moytu si yeneen centre de vote yi la gisuñu ko mooy sénégalais yi ni ñuy war di génnee heure bi des na dañ leen di wax nag ne leen élection bii ñuy jëm élection bu am solo la suñu démocratie élection bu am solo la ci seen baat ñoom si seen kàddu ñoom parce que seeni mbëbët seen bëgg-bëgg li ñu namm pour contrôler li nga xamante ne exécutif mu ngi koy def lu ñu namm pour fexe ba benn dérive du am ñoom dañu war a jël kàddu boobu jox ko ay nit ñu représenter leen assemblée nationale loolu mooy la démocratie représentative maanaam élection bii élection wu peuple sénégalais yi la élection bii élection la pour tànn ñi leen di teewal assemblée nationale la moo tax ñu ngi leen di woo ngeen génn massivement ngeen voté massivement am nañu Sénégal tradition électorale xam ngeen nu ñuy voté di ngeen ko def si jàmm di ngeen ko def si teraanga te jàpp nañ ne à chaque fois ñu voté suñu xëyee dañuy dem liggéeyi waaye aussi tàmm nañ di gis sénégalais yi ñu voter ñu accomplir le devoir citoyen moo tax dañuy ñaax population yi ñu génn massivement ñu dem voter ji choisir tànn seeni député député yu leen war a représenter assemblée nationale député yi nga xamante ne dañu war a saytu ñi fi nekk tey liggéey bu ñu war a def ñu saytu ko xool lu si baax ak lu si baaxul ñu mën a teewal population yi beneen bu ma si yokk mooy ni population yi amee habitude u voter noonu la administration sénégalaise am habitude u organiser ay élections le Sénégal est un pays démocratique une grande démocratie boo xam ne def na ay preuve en en matière électorale dañuy ñaax tamit ñuy organiser élections yi lépp lu si war en terme de transparence ñu matal ko ba mu mat sëkk parce que fajar gi suba si lañ nekk nii mbir mi day dem ba ngoon jàpp nañ ne calme bu ñu gis transparence bu ñu namm si élection te yàgg ko gis loolu dina dem jusqu'au bout ni tax ma koy préciser parce que dafa am ñu ñuy jiite ñoo xamante ne ne kenn si ñoom koo xamante ne ne taxaw na si campagne électorale bi ñëpp di ko dégg mu ne dafay jox ay injonction mun na jox ay injonction ministre de la justice ku mu war topp mu topp ko koo xamante ne gis na ne ne war nañ ko pour poursuivre mu poursuivre ko loolu am na si droit noonu lañ jàpp ne ne comme moom du hors la loi la comme moom du démocrate mën na tamit xelam for mu for si xelam ne war naa jox ay injonction ministre de l' intérieur si ni ñuy dérouler élection yi war na war na jox ay injonction ministre de la justice par rapport ak candidat yi parce que rumeur yi bëri na si ay arrestation yu ñu bëgg a def si ay candidat rumeur yi bëri na par rapport ak lu ñu bëgg def ci élection yi donc ñu ngi ñaax administration bi ñu ngi wax le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice ñu jël toutes leurs responsabilité on a besoin dañu soxla dem ci ay élections libre et transparentes dañu soxla suñu démocratie mu wanewaat boppam tey dañu soxla au soir du set te muy tey jii sénégalais yi ñu exprimer wu te sénégalais yi gën a yi seen décision boobu ñu respecté ko jërëjëf. acca salaamaaleykum mbokk ami internet univers info ak bi promédia comme niñ leen ko doon defalee ci actualité yi nga xamante ni moom mooy xew ci Sénégal gis ngeen campagne yi toppal nañ leen caravane yi gis nañ leen tamit campagne yi toppal nañ leen yenn discours yi nga xamante ni yenn ci leader politique yi nga xamante ñoom ñoo ngànkoon tey bés bii ñoom ñëpp ñu ci bëri ah pour bañ a wax ñëpp ndax tamit topp ñu woon ñëpp mais ñu ci bëri si ñi nga xamante ne ay leader lañ dugal nañ leen image yi nga xamante ni ñoom moom lañ doon def comme Euh, campagne moom lañ doon annoncé pour ñi nga xamante ñoom ñooy askanu Sénégal mën leen jox bopp tey nag on est le 17 euh, novembre 2024 fii nga xamante ni moom mooy ci Parcelles Assainies fi nga xamante ni fii la leaderu takku wàllu di Amadou Ba nekk tête de tey war a voté fii nga xamante ne moom mooy ci Parcelles Assainies liñ fi nemmeekum nag biñ fi yegg seeg léegi mooy lépp mu ngi dox. ci jàmm lépp mu ngi jaar yoon gis na nañu ni sénégalais yi ñu ngi génn nànk-nànk mais ñu ci ëpp ay jeunes lañu ñu ci ëpp aussi tamit ay pa ak ay maire lañu xëy na fi ak ci kanam tuuti incha allah ki nga xamante ne moom mooy leader boobu di Amadou Ba moom it war na fi yegg si def li nga xamante ne moom mooy devoir civique am ci euh, bureau de vote numéro 600. voilà bureau de vote numéro 6 ni ngeen ko gisee nii nii lañ leen koy toppalee incha allah après tamit dinañ fi fi jógee dinañ leen ne ay candidat la ñoom it nekk fi nga xamante yooyu yëpp tamit affluence la yoo xamante koy xaar yooyu yëpp ay ay image la yoo xamante ni ah, askan bi dañu koy xaar xool ñoom nan la ñu nar a li nga xamante ni moom mooy seen vote xool li nga xamante ni ñoom war nañu ko def pour ah, matal li nga xamante moom mooy seen devoir mais daal li nga xamante moom la ñu nemmeeku fii a voté ah xaar ba mu soob sax ba mu sabab tamit ah ñun ñëpp ñu def déplacement ñëw fi mooy Amadou Ba ndax tamit leader la tamit dañu koy xaar ndax boo xoolee bokkoon na ci li nga xamante ni moom mooy euh, présidentielle yi nga xamante ni moom la génn te mu nekkoon sax deuxième ah kon tey euh, bu ñëwee ci élection législative yi nga xamante ni moom la ñu war a def kon àdduna da koy xaar Sénégalais yi aussi dañu koy xaar ci kanam tuuti ñu ngi ñuy xamal ni war na fi yegg si ndax tamit nee nañu du du du du yéex a ñëw par rapport ak présidentielle yi mais tamit gis nañu yenn ci leader yi nga xamante ni def nañ seen devoir civique ba pare ku ci mel ne président Ousmane Sonko nekk foofu nga xamante ni moom mooy ca Ziguinchor ah gis nañu ko bi mu defee li nga xamante ni moom mooy euh, devoir civique def na tamit benn déclaration mu ngi ci wax nii Euh, mu ngi woo sénégalais yëpp mu ngi woo ñëpp ñi nga xamante ni tey war nañu def seen euh, vote tànn seen seen mais ñu def ko ci yar ñu def ko ci tegal ñu teg ko ci dans les règles de l'art mais aussi yokk na ci ni moom am na yaakaar ak ximimtif que ni bu résultat yi génnee moom dina gagné te tamit mun nan lañ ko ko nangul ndax tamit euh, ñoom ñëpp tey ñoom ñoo bokk li nga xamante ni moom la ñu bëgg ñoom ñëpp tey ñoom ñoo bokk li nga ni tey moom la moom moom moom la Sénégal woote tey ji ndax tey ñoom dañuy dagaan li nga xamante moom kaddu askan bi kaddu sénégalais kon dañu koy nangul waaw bu ko waxee <laughs> xëy na am na fu mu ko teg mais tamit ñeneen ñi nga xamante ni moom mooy ay naataangoo euh, candidat am ñoom bu ñu defee seen devoir civique ba seen yaakaar que ni dinañu ci loolu ñoom it wax ni ñoom it incha allah <laughs> si tout va bien ñoom it dinañu gagné mais ak lu ci mënti am rek ñun ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi incha allah dinañu topp loolu du début à la fin ndax bu ngeen xoolee fajar ba léegi ñu ngi sur le terrain bu ñu jógee fii nga xamante ne moom mooy ci centre bi war nañu dem ci centre Barthélémy Dias war nañu dem ci centre Abbas war nañu dem tamit ci centre ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye ñoom ñëpp ñi nga xamante ni daal Euh, ay ay leader lañ mais aussi ay candidat la yoo xamante ni sénégalais dañ leen di xaar rawatina tamit diaspora bi ndax tamit am na ñoo xamante ni tey à travers suñu euh, direct yi à travers suñu image la ñu mën a xamee li nga xamante ni moom mooy am fii ci Sénégal ndax tamit ñëpp dañu koy xaar kon fii ak kanam incha allah ñu toppal leen yooyu nga xamante ne ay candidat lañ te war a def seen devoir civique mais nag duñ ci duñ ci yam ndax dañoo bokk ak direct bi ki nga xamante ne moom mooy suñu naataango nekk foofu ca bi promédia ñu koy wax waagaan suñu directeur balaa mu dugg ci kàddu Kaddu dañu koy nuyu rek jaajëfal ko mais aussi félicité ko ci liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy def waagaan ñu ngi lay nuyu. amal ziar naa maa ngi bëgg ñëpp nuyu waa waa Bipro waa Unive aussi rafet rafetlu aussi lépp kon a vie aussi aussi parce que fii moom lépp lépp nice na ñëpp ngi voté ñëpp a ngi ñëw dugg voté def seen droit civique daal. Mm-hmm. Mm-hmm. comme comme comme comme ni nu ko waxee tout à l'heure mooy biñ fi yegg seeg léegi gis ne nemmeeku wuñ fi lenn loo xamante ni lu lu lu négatif la mooy lépp mu ngi jaar ci yoon tout ça passe très bien gis nga bureau de ubbi na à temps il est presque 9 heures ndax il est 8 heures passé de quelques minutes combien. il est il est il est 9h16 voilà il est 9h16 xam nga lépp mu ngi jaar ci yoon mais nag comme li nga xamante ne moom la ñu gis euh, la fois passée ci présidentielle yi dafa am wuute bu bari ci li nga xamante ne moom mooy législatif yi ndax boobu il y avait une foule une foule une foule mais aujourd'hui il y a un calme. xaw ma on sait pas nag le le pourquoi. Mmh. il se peut fii ci kanam incha allah ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a voté dinañu génn ndax tamit d' accord da xam nga dafa am ñu mel ni man ak Doudou. ñoom lu dul nelaw topp ñu ko ah. mais nag euh, lii lii devoir la boo xamante ni ku nekk war na ko mun a def lii droit la boo xamante ni ku nekk war na mun a surtout nga am sa carte parce que tamit am na ci ñoo xamante ni judd nañu. toll nu ne voilà. à le à le devoir de voter. Ah de choisir. Mhm. lii nag élection législative la. Mhm. waa mhm. du présidentiel souvent nag avec les candidats on entend tout. su ma leen falee tant tant tant tant tant mais loolu yëpp amul kii. waaw ñun daal nañ fexe daal am. une assemblée boo xam ne duñ fa nekk di xuloo di ŋaayoo comme bii passé. waaw nañ taaxal askan bi aussi. comme c'est c'est un choix du peuple nag na peuple bi aussi xool ñoo xam ne yaakaar nañ ne ñoom suñu demee. on aura tout. parce que loolu mooy l'essentiel. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est très important ci euh, loolu nga xamante ne wax nga ko salle bii nga xamante ne moom la ñu jàkkaar fii la Amadou Ba war a voté waaw fii mooy bureau 6 ndax euh, bu ngeen xoolee keroog euh, ci présidentielle yi ñooñu lañ ko couvrir woon fii on était là fii la ñëw def li nga xamante ne moom mooy devoir ah, def ko comme tamit ni ko sénégalais di defee comme ñi nga xamante ne ñëpp am nañu droit wu defee ko noonu moom it noonu la ko ñëw na sañse comme ñëpp Euh, dugg parce que ñoom duñ leen permettre sax ñuy ndax bu ñu leen di permettre ay affaire dara ran mën na dem ba si indi ay bouchon yoo xamante ni waaw du ko jar te fii tey laaj ñu fi loolu boo xoolee ñi nga xamante ni dañuy voté si ñëpp kenn sañu fi ñëw sol benn yére wala boo benn mm. t-shirt boo xamante ni sa leader la non non loolu c'est ah, interdit kon ñi nga xamante ni tamit ñoom ñooy déglu vidéo bi di ko seetaan nañu bàyyi xel ci loolu mm. ndax am na ci ñoo xamante ne ñoo mel ni amaat xamuñu exactement nan lañu war a mun a voter nan la ñuy voter mm. donc c'est très important tamit yooyu ñu siy ñëw mais daal li nga xamante ni gis nañu ko fii lépp mu ngi jaar ci yoon ñi nga xamante ne ay mag lañ ak ay pa comme troisième âge yi waaw gars yi ñu ngi leen di jàppale ah, bu ñu ñëwee du ñu ran dugg ci li nga xamante ne moom mooy seen bureau de vote def seen devoir citoyen après replier wu seen kër toog xaar li nga xamante ne moom mooy résultat yi kon ñu ciy jaajëfal ñooñu ñëpp mais aussi ne ñoom ñooy suñu mbokk taskatu xibaar yi ndax boo xoolee ñu ci bëri da toppoon nañu ci li nga xamante ni moom mooy ah, caravane ba ci campagne yi dugg nañu fu ne ci Sénégal ah, ñu leen di masaw di leen féliciter bu baax ci li nga xamante ne moom mooy liggéey bi nga xamante def nañu ko ndax xamante ni bu extraordinaire kon Vraiment. Surtout la presse en ligne. Vraiment. Parce que les, les youtubeurs aussi, souvent, on les critique, mais lu fi xew aussi ñoom ñoo ko wane de. Mhm. bravo à ñoom daal. Mhm. Mhm. kon kon dañ leen di jaajëfal ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci euh, presse bi ah, mag ak ndaw góor ak jigéen ci organe bu mu mënti doon rek parce que si nuuraanu ñun ñoo bokk li nga xamante ni moom mooy liggéey bi jaajëfal nunu leen te di wax ñi nga xamante ñoom ñooy internet yi fii ci kanam incha allah bu Amadou Ba yegsee léegi dinañ leen jëlal arrivé bi ak ñi nga xamante ni noonu la nar a li nga xamante ni moom mooy votom kon sur ça dañ leen di ñaanat encore une fois que ngeen partager li nga xamante moom mooy vidéo yokkul li nga xamante moom mooy abonnement bi pour mën ñu dooleel ñu nit ñu sacrifié wu journée bi li mu nar a gudd gudd dinañ ko jaayante ngir mën leen toppal li nga xamante moom mooy vote législatif pour bi nga xamante moom la nekk kon loolu rek lañ leen di ñaan ñun incha allah fii ci kanam incha allah ñu ñëwaat ak yéen ci li nga xamante moom mooy li xew merci beaucoup Wagan ok Amath merci